yal na yàlla def barke sëy waaye suuf si Amadou Gueye suuf si na leer moo di cër bi li tax ma ko doon waali fekke ba mooy ku am waali xam bu ko ci man mën a jëkkee nee na ci moom la jëkkee Amadou bi ñoom ñaar ñooy xarit ànd ànd yàlla moo waral kër bi mu ko doon li def dara mu fekke yàlla yàlla def Youssou Thiam ana Youssou Thiam nee na su nee na su Youssou teewee rek ñu waat teew ana Youssou Youssou kaay Youssou teg ngi nii mi ngi nii waa lay ngoog waa lay na de dara toose baal leen na de sunu waaye diw xaar yàlla moo koy dogal na ñëw rek moom directement na ñëw rek moom directement. c'est ça la réalité. c'est ça la réalité. ndax sax yaa ko jàppale yaa ànd ak moom ba dalul dara doyal ko ànd ak moom ànd bu sincère yal na yàlla guddal sa fan alaaji ma ko benn waaw ko wax na wala ñëw mooy madame mooy kilifa diggante mooy Cheikh ñëpp xam nañu. Cheikh dafa ànd ak moom ànd bu rafet. alaaji ma ko dégg. dama bëggoon xam kilifa yi ñëw ki ñëw xam nañ mooy kan. waaye day kenn koo xam ne man alaaji ma ko dégg may waree ci tamit Seydina Muhammad. jërëjëf alaaji ma ko dégg ku baax day ñëw xale bu yar dafa ñëw. ànd ak Cheikh tabarakallah ba dara du dara ànd ak moom ba Cheikh tabarakallah macha allah kanam dem ci Dakar am na jaay tuuti ki doon xaar jaay doon xaar man yaa si benn sécurité man si biir maanaam ay maa ngi leen soog def naa leen si saa waay ñu ngi leen jiin ñu ngi bëri naa leen ndax ñu ngi déggee bay daaw daal ñu ngi dafa ñu dégg xaar ala ñu ko bisimilah. Amadou. waaw góor Pape Demba. ak góor waay. jar ngaa xaar de. Seck. ren ma tuuti. daal di kenn def kenn du loolu nag dafa am lu ko waral mooy kii fi indi Cheikh ci Ndakaaru bii ba ku fi gis bëgg di kilifaam di taawu yaaya mooy buñ kenn def dara te waa ji ñëw cër bi si sama la ko yaa yaa ko ci Cheikh yaa tee Cheikh yaa jàppale Cheikh waaye nag nee avant mu am seen digganteeg Cheikh seen digganteeg moom lu jëkk suñu borom mooy dogal cër yi su fekkee ne am na kàddu yoo ci sànni ñu dox la fekk la nga si traité ndax ku man di doon soo àndee ak nit ñi tane leen taxaaroo leen da ngeen di bàyyi leen waaye lii mooy wan yow mi la àndal def na leen loolee taxaar nee na kaddu yi kaddu suuf Serigne Bara nee na yow yéen ñëpp ngeen ko seen wàcc nee na nag di yéen gorom yi ngay may soxna nee na ngeen di gërëm di leen baal wax nee na di kontaan ci ñi fi ñëw ñëpp ñaan yàlla suñu borom sëriñ bi seen bàtt kii nag mooy mbisa kii mooy kilifa kër gi waaye kilifa ak la dafa am kuréel ca morgue ba ca hôpitalu Fann a ca jàkka ja CA bi baax ja def na fi ne nee na ba ca morgue ba ak la mu def ca hôpitalu Fann mi ngi nii toog moo doon intendant wu hôpitalu Fann mi ngi nii toog nee na li ngeen ñaan yàlla yàlla ko yàlla fay. ren bii mën na ko wax kon dugg ci kër gii di jigéen fas yéene bi sëy na sa soxna yow sa soxna. mas a yoon ndax kenn seenu ko fenn kenn déggu ko fenn madame Waly Seck kenn gis déggu ko fenn kenn gisu ko fenn te nee nañu yaayu Xalifa moo ma wax yow li nga bëgg a Cheikh sa soxna moo gën bëgg Cheikh Cheikh kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom moom fu mu teg tànkam ko mu mën a bé bénéfice di doon ci sa kàddu sama ko eh. loolu wax loolu. ma ni fi yoon la ne. moom moo ñuy may moo ñu moo ñu wax. waaw ma ni d'accord nañu d'accord nañu waaye baax na wax. ay seet lu ñaan. waaw. xaw ma di ziare bu baax. eh Ismaïla kay kii nag la door xaar bàyyi la ñu wax kii la door xaar jégalu bu baax a baax jégalu

amiin ya rabbal aalamiin nangu leen ñaan fooy kal na nga ñaan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آمين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آمين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمين الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 ليلة القدر خير خير خير بين حق مقدران وشاهد الشيخ امين ما انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير خير خير بين شاهد الشيخ وفاطمة مقدران بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير خير خير بين آدم وإبراهيم وشاكيد إنسان آمين وإن أبشار تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نشهدكم يا ملائكة النهار ومن حضر هنا من جماعة المسلمين بأن قد أبدنا النكاح بين فاطمة دران وشيخ جانسان بصلاة قدره أحد عشر ألف فرنك إبريلي وبإذن وليهما وبشهور معينين فإن بمعروف وإمساكم فإن وإمساكم بالمعروف نشهدكم يا ملائكة النهار ومن حضر هنا من جماعة المسلمين بأن قد أهل من متاع بين الشيخ سفيان السير وفاطمة الآن بسبعة تبلغ أحد عشر ألف فرع وبإذن وليهما وبشهود معينين فإمساك بمعروف معروف بمعروف كل بمعروف نشهدكم يا ملائكة النهار ومن حضر هنا من جماعة المسلمين بأن آمين ومن المؤمنين والمسلمين المحللين فإمساكم بمعروف فإمساكم بمعروف فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان جمع الله شرهما وأطاب في نصرهما جمع الله شرهما وأطاب في نصرهما جمع الله شرهما وأطاب في نصرهما وبارك لهما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 di la siyaare di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal ak wér Amadou Gueye fii ci jërëjëf ñu fi teew lépp ba leen bëggee liñ dinaa bi du ko waaye dafa am xam lu muy ay kàddu seede ci diggante président Wade mi toog xaritam ji muy naan si dara tey di Cheikh Ahmed Tidiane lii ñu seede nag lu ñu suuf rek may la ndax vraiment Cheikh naa dinaa di wax dinaa lu may wax ci li ngay dund boo dee di ko wax Cheikh Tidiane xale la boo xam tey bu président defee déplacement def dérangement ànd ak une forte délégation maa ngi seen sama nijaay Alaaji Yusuf Tey maa ngi seen sama papa Alaaji Tumaan Njaay sama papa Alaaji Maodo Mbay tubaarkàlla kenn deful délégation xale bu président waa lépp def une forte délégation am na ko Sëriñ Fallu Mbàkke sama papa sama sëriñ ñu ngi fi teew lépp teew di ko toog président daa fi naan yore ba sa ba sa tey bi wax diggante bi ñu dëkk ak bi ñu dëkk ak bi ñu place de départ mat na ko kon bu tàggee ay naroon def délégation def dérangement ñëw am na mbooloo ñu waay ñëw dikkoo ko indi te dikkoo yoree mooy dikkoo yi tedd yi nga xam ne moom lañ gis ci loolu rek ji nii naa jàpp di Cheikh Ahmed Tidiane kon nag ñu koy ñaanal sëriñ barkeel yàlla bàyyi ko soxnaam may leen njëriñ bu barkeel may leen njëriñ bu góor ak bu jigéen ñëpp ay jullit te ñu jël siraatal mustaqiim yàlla mën na ko yàlla def président de fédéral nit ku nekk di bay nit ku ko maase nit ko yaasa Ousmane Kouroune ci benn nit njariñ day dugg ci nit njariñ lii waral say nit mooy bu dee nga gàllale bu ñu xewlee nga teelale ñoo ngi gërëm suñu bopp bu baax a baax président nee na ñoo ngi gërëm ñu may soxla ñi nga xam ne seen doom képpal kooku nga xam ne mooy Cheikh Tidiane président waa nit ñi amuñu seen fay ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah léegi nag lu may waay mu dugg ci biir kër gi doon suñu soxna su paree nag mu dem fa nga xam ni macha allah mooy mooy jëkkër nga jëlal sa fa. Président, président,

呀，不会，那边没人打，好了吧？ não gobe da mu ya ba Thank you.

dinari, 50 dinari. Jaga dengan baik, jaga dengan baik. Oh, oh. Jangan lupa. Mar. Jam, jam. Eh, jam. Mar. Sudah lagi, Pak. kal babari babari Allez tout droit. Allez, on dit dame. Saute. Comment? Attendez tout. yaa dégg yaa baax ba yaa bokk ci la. yaa dégg yaa baax ba yaa bokk ci la. waaye naa leen ku nekkee bay. waaw. baax na foofu de muuma wala oto bi moo avancé non non nii nii nii eh oto bi moo avancé woo bii day avancé moom mu ñëw mooy. kii déggu la de. kii foog nga aw ko de. Tumaan. jàng naa far tumaan. bu ñu bëggee dee. mooy tumaan. Tumani. Là. Nên dừng. Dưa dê là người. À đến đây bắn. Dư. Dale gringo. Dale gringo. da doon xeex kii rey nañ ko de ubbil vitre bi ubbil ay ubbil ay mais dama naa la moto mais maa la raw mais démb woo naa la jëloo ma de. non non non non du la jël activité yaa bëri. non non non non kii lu ma seq ak xam naa ko xam na. kii la. <laughs> mais monsieur le ministre. Ah, oh, oh. mais monsieur le ministre. waaw gars yi balaa ngay dem nga sànni ci kaddu. waaw non non déedéet amul solo dama lay euh, hmm. euh, bi nga xam ne Wally def na ko ci hmm. doomam mii di Cheikh Déranger. ñëw ci mariage am. Hmm. pour une deuxième fois Cheikh Déranger. duggaat ci néegu sëy. waaw. waaw. ndeysaan daa bëri ay fans. dama dugg benen keur bo xamne bokul ak Faramareen wa mais sama gars ma ngi len ziar ma ngi len beggé béggee ah kontaan naa mon ami moo très cher sama gars yi na ci yeen kulim lim djum juum jërë ngeen jëfati sëy moom mbir suñu borom la maas limay wax chaque jour rek yalla mo yor sey deug la sey dafa am bakken du dund ni Omaro du dundé ñew taxaw fi di wax soxlam di ko dox ak di ko wax yow de xam nga ci dara suba nek tën nag ndaan yow de xam nga ci dara mo Omar dem na wuy ji na suñu borom yalla na noonu la sëy mel sëy dafa am bakkan bi yàlla dogal na nag Cheikh Tidiane duggaat ci néegu sëy son excellence def li ko war ndax li ko war mooy xale bu bàyyee ñëpp ñëw na la yaay suma papa xale bu bàyyee ñëpp ñëw na la yaay suma idole xale bu bàyyee ñëpp ñëw na la yaay suma référence yaay suma royukaay li la war rek mooy uuf ëmb tée te yërëm te noonu laa gis président Waly doxee ko gone yi ko yàlla sédd ñu bokk ci njabootam dëkk biir këram aj bi ñëw biir waaye rawatina it Cheikh Tidiane parce que tey président li mu ëmb ci gone ëpp nañ ay junni waaye Cheikh jikkoom ak yaram ak taalibeem ak tegginam ak doyloom ak maanoom may na ko dem na ba yegg ci président di ko àllu boppam mu koy dencal dem na ba yegg ci président boo ko waree jox ay xéewal te nekkul Dakar wala boo nga ko jox ay xéewal te jotam may ko ko mu yebal Cheikh Tidiane nga daja ak moom mu jëli ko wala mu récupérer man na bàyyi lu 50 millions wala 100 millions gi Cheikh Tidiane mu fanaan na ñetti fan ñenti fan mu doog ko soxla woo ko mu lolu nak duñu ko am waaye Cheikh amna lolu loolu te ñun fekkee nañ ko te mën nañ ko seen tay spectacle yi ñi am ci dakaru ak liko wër bi yi nga xamne tay nit ñaa ñew lu dag diko dindi ngir dugg ci xew yi xaalis bii yooyu boo ko dajalee lépp balaa bi jeex ci loxo Cheikh Tidiane lay fanaan ba mu na la ba yew dogo wo président ko compte kon yakar ak confiance man tawé su lo la ko may nak diko ju rafet la la may wax chaque jour rek nit du bopp du bakkan du baat du gémmiñ du làmmiñ nit jikko la waaye na ko laa la xuluxit azimi nit jikko la ku la gën jikkoo la gën te Cheikh ay jikkoom rafet kon nag ñu ngi koy ñaanal sëñ bi yàlla barkeel yàlla sàmm ko aar ko muccul ko moog njabootam ba fa ñu bëgg a jëm ñu yegg fa incha allahu asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. mënu ma la bañ a dara rek waaye bu ma soñoon ñem ci xew mi rek. benn question rek. waaye nañ ñem ci xew mi. lañ bëgg a waxtaanee rek président def. waaw mais waaw mais waaw mais mais golo. waaw un million mm-hmm. euh, da cee lañ génne ñu naan ay ay kii la sol. Mm-hmm. ñu ngi koy waxee ay toxet sa réaction xam nga li may wax chaque jour rek. président Wali, dafa dépassé sénégalais ci wàllu monde lolu dogali sun borom la ah. lolu dogali yalla la tey moddu bu tollé ci 2024 président Wali, comprendre nako 2020. mom day comprendre moddu bi comprendre actualité comprendre li xew ñeenti at ci kanam mu nekk ja ku comprendre nak gisso xamo nga di ngat di koy sénégalais loolu la sénégalais waxal wan ko lum xam mu ne yaa fi ne wanoo lum xam lum gis mudi ngat la sa der tuumal la waaye dàll yi président sol ku ko jiin leneen lu ay chaussures fermées ay dàllu góor ci ay caaxaan nga ne xam nga wax day am seede dàll yaa ngi dama la koy wan nga xool ma décortiquer la dàll yi dama lay wan dàll yi la muy indi problème bi lii waaw jërëjëf kok moy Cheikh Mbacke sama xarit la nit ko yalla baxal li dal yaa ni dafa am écriture dafa am écriture bu nek ci kaw motax peut-être du ngeen meuna gis bu baax li ma leen wan xam nga dal baangi ni waaw dal bi ba gis nga baxna am ngeen ko dal bi le président sol léegi li ci digg bi ni en noir en noir moo tegu ci ko pied bi gisuñu ko ndax ballarge bi mu sol jiin bu ubbeeku bu mu sol waral na bi mu tegee tànk yi ci li nga xam ne mooy pied bi di yéeg mu nëbb li ci digg bi en lii yaa ngi ma dégg gisuñu ko léegi ñu gis cat ba rek ne ko cat la dàll yaa ngi ni lii lii ay dàll góor la tu as vu ay daalu góor la dafa am design bu nekk ci diggante bi boo xam ne moo nekk ci digg bi nii nekk diggante kenamu dàll bi ak ginnaaw dàll bi design bii nag luñ gisul ñu ne ko ket la hmm. lii mooy jikko sénégalais lu mu xamul lu mu gisul ilee mu maano doyloo yàlla delloo ko suñu borom waaye du ko def day dee nga baa mu wet nañu ko maytu président kilifa la bugguma sax di wax ci situation yu nu mel mais euh, dama leen respecté yéen hmm. nawloo leen am fu ma leen teg ñoom fu mu jaar mun leen ma laaj mel néewal doole wala mel toroxal du ma ko def mais dama ne président kilifa la xulul dara dëkk bi mu dëkk juddoo fi yaroo fi màggee fi def fee tekk dara waaye it am fi njaboot bu baax takk fi soxna su baax jur fi doom yu baax am lu koy xaar ëllëg yenn wax yi loo bëgg showbiz showbiz loo bëgg dingat dingat loo bëgg yëngal gem bi yëngal gem bi waaw war nga ko fee bàyyi Youssou Ndour waykat mag bi dafa way ne am na lees waxul daf ci am loo xam ne wax ko yabaata la rek ak reewande ak bëgg wax waxi dof waaye du wax génn maanaa moo tax nag polémique boobu deful sax trois de temps nit ñi daal ci leneen parce que xam nañ ne c'est du cinéma daal yaa ngi di wan naa la ko en preuve nga gis ak say kon nag nanu maytu yooyu wax bu ñu bëggee showbiz wala ñu bëgg jaay seen i presse jaay seen i journal jaay seen i chaîne nanu lam bi feneen waaye bàyyi du tuumal as gor as gor kenn du ko tuumal loolu nga may ñu ko rek. waaw nga def benn lu solo. ci wàllu liggéey ci wàllu showbiz. Mm-hmm. nga def tournée deux mois. Mm-hmm. ngeen gagné presque six cent et mm-hmm. li nga xam ne moom ngeen def ci jeux olympique yi. après mu bëri polémique. am ñuy wax sax naan Pape Diouf lañ choisir woon ndax fay kasi bu baax moo tax Wally def. li ma la a dénk mooy. Mbacke ziar naa la Abdoul Ahad jërëjëf. li ma a dénk mooy président Wally waxuma la tund deux mois. waaye performance yi mu liggéey ci showbiz bu Sénégal ñefe ak jaayante ak xaru bi mu xaru ba yóbbu la musique sénégalaise ci beneen level au niveau national ak international mérité na dem tourner une semaine une semaine laa wax ñëw indaale 2 milliards euros waxuma la ay 1 milliard ak 1 million 2 milliards d'euros mérité na dem tourner européenne une semaine ñibbi si indaale ko ndax bu jom ak fulla ak fayda ak ngor moo koy maye ak nangoo liggéey président Waly mate na ko defe na ko ba mu mat sëkk leneen li ci mooy li jëm ci Pape Diouf Pape Diouf mooy président Waly président benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar suñu woowee président Waly woo nañ Pape Diouf suñu woowee Pape Diouf woo nañ président Waly benn la Sénégal ki gën yàlla ñëpp am jàmm mais man na Mass da ngeen di xaw a yàqu. Mas por que eu não me lembro? Vai, vamos lá, cara, vai. Mas não precisa, mas. Manda. boys now. Manage him. Okay. Be careful, man. Hiding it down. La félicitations. Ok, ok, c'est bon. Ok. Tiens, on va se garder une tafée. Tamam. Mas, halen, ganam yi ñëw ah. mas tey dañu ngi fi takku Cheikh la waati Cheikh nga ne xanaa di ko ñaanal yàlla yàlla barke sëy bi ci barke Seydina Muhammad Cheikh yi askor yi nit ku baax nit ku yiw la tey mbokk yi sañ ndar ñu dëkk ndar ñëpp a ñëw kenn manqué wul waaye xale bi ñu ko xale bu yaru la yàlla na yàlla barke sëy bi yàlla na benn sëy ci barke Seydina Muhammad président Wally Seck léegi la fi jóge Cheikh dafa yaru nit ku baax la waaye mas kenn du yow yàlla na yàlla barke <laughs> ah, Seydina jàmbaar dama may fi doon mu liw naa moom bu ñëwee mu leen. ay nu ay indi Cheikh Tidiane mi. da ngay dem sa papa. salaamaaleykum kii mooy siapa yang Diagne kii siapa yang moo la siapa yang seen Cheikh siapa yang naa ne siapa yang sax xam siapa yang xam nga siapa yang ko. dëgg siapa yang ñu ngi siapa yang jàmm. di siapa yang yàlla na siapa yang ci barke siapa yang ñu waay siapa yang Cheikh yàlla siapa yang lépp. yàlla siapa yang yàlla yàlla siapa yang papa. xam nga sa borom bu baax nii xale bu yarañ nii nit ku yiwañ nii nit ku bari suñu nit ku bari jom bari nangoo liggéey am jom. dëgg la tey mbokk bi jóge na dëgg la tey ñëpp kontaan. dëgg bi jëwali ñëwee bi ay góor a ñëwee te xaritam bi xam ne fa dafa rek àlla macha allah bi ñëw moo ñaan si woon muy fukki amul jee ak wàllu sek. dëgg la dégg si wax ak dégg nañ kàddu yi def ci moom moom na xale bu yaru la dañ koy a ci barke Seydina yi sëy yàlla na benn sëy ci barke Seydina Muhammad ngay daal di sa daal mooy seen goro. di seen doom di seen jarbaat di jarbaat di doom ci kër gi. waaye mooy xale bu yaru. di nit bu baax. am jom am fulla am fayda nangoo liggéey ba pare bëgg ba pare noppi. kenn dégg ko ci dara. nit ku yëwa ngi nii. tey boo gisee xatam yi fi ñëw. président Wally Seck ñëw na fi ànd ak délégation une forte délégation. Amadou Gueye ñëw ànd ak une forte waa Ndar ay mbokkam. askan wi kër ndeyam askan wi kër baayam ñëpp ñëw. kenn nangu loolu nag li ko may mooy sa yar ak sa teggin ak noppi ak bëgg lu baax ak yeneen nit ñi jàmm te président Wally Wally seet kenn mënu ko nax ku ànd ak moom la mat parce que xam ne jaw dara nga ànd ak moom nag yàqaloo ko dara nga ànd ak moom ci liggéeyam bu ko wét bi ba yàlla def nga yor sa liggéey bopp téew ba léegi loolu lépp nag di ko may mooy yar ak teggin ak fulla ak fayda bi nga demee ba war a takk sax da ñëw ba ci booy jur xale bu jigéen bi ñu la may nga ñëw ba jaay mbokkam nga wax ak ñoom ngeen waxaale ban fas nga jëm say mbokk nga waxaale ban fas kàddu gi doon kenn kàddu nga ñëw ci biir kër gi nga ñëwee dañu sa sa kon sëy yàlla benn sëy barke sëy ku yaroon nit bu baax barke li wax kenn bu ñu développe lii nee day ñaan yàlla rek nee luy def ñun ñëpp ci kenn rëccu nañ ci di bëgg rek am nañ ci yaakaar ndax Cheikh ma ak fa mu jógee lépp lu baax la nee na ki fekk si man mii seex laa tudd kon nag benn la rek nee na moo xam li baax nee na nit ñu baax ñi te baax fekk na baaxul nan yaak fekk yaakaar nit bon na it fekk bonul nee na yàlla rek moo xam ku baax yàlla nañu yàlla boole ci ñu baax ak nit ñi fi ñëw ñëpp bi Seydina Muhammad nee na Cheikh nee na kon sa sa trop bi nee na kontaan na bu baax. li gis ci moom. nee na li gis ci yow. mooy yar mooy yar. ak teggin ak fonk doomu aadama dëgg la te man loolu lay nawe nit am am dëkkul fenn ku ne mën na ko am ne daf mën na koo for nit mën na koo for nee na kon ñaan nan ñaan rek ñun ñëpp suñu yaakaar yàlla ko yàlla yow yàlla may la gudd fan te lii ñu la jox nee na mu jiglo la na kin la joxit ah, ah, mu jig ko na bu yaakar mam ba def ko bañ ko rek nee ci barki sayidina Muhammad nee ñu daal ñaan def ñaan amin amin amin amin amin amin amin

waaw jërëjëf Cheikh. Cheikh. Cheikh nan dem nga nuyu ñu si bi.